mbokk julli di talibe yi ci ndigalu sëriñ Touba sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides yal na fi yàgg lool te ànd ak wér ak ci njiital sëriñ Fallou Mbacké Souhaïbou ci teewaayu dignitaire collectivité lébou du Kaver, Cheikh Mansour Diouf représentant Khalif général des Mourides te Ngor Wakam ak Cambérène ambassadeur de la paix de la fédération pour la paix universelle moo am tawféex ak mbégte dilen leen dilen di ak dilen wo. ci cant amal at mu nekk te Yoff bayalu Cheikh Mansour Diouf ci wetu marché ba muy bésub sant sëriñ Touba Serigne Saliou Mbacké Xaadimu Rasuul joxoon ndigal ba mu koy seexal ci teewaayu Serigne Fallou Mbacké bu di ndigal lu mbooleem xalifa yi wutu Serigne Saliou Mbacké doon yeesal ba tey ci xilaaf ak borom mbégte mi Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yàlla fi yàgg te ànd ak wér yeesal ndigal li teg ca feddali cofeelam ci cheikh bi ren di 17e édition cant gi ñu koy amal samedi 1er juin 2024 ngontub maam Cheikh a Fall mi jiitu cant gi ñu di ko amal ajjuma fanweeri fan ak benn ci weeru mai 2024 programme bi yi ajjuma fanweeri fan ak benn ci weeru mai 2024 neuf heures ba onze heures la ñuy tëj njàngum alquran mi ñu dooroon lu jiitu cant gi dix-sept heures ba vingt heures di ngontu maam Cheikh Ibrahima Fall samedi premier juin 2024 di bésub cant gi dix heures ba quinze heures njàngum xasida ziar ak ibernde dix-sept heures ba dix-neuf heures la cérémonie officielle bi buñ ca noppee cheikh bi dellu kër ga ñu wéyal ziar yi ak bernde yi ba minuit taalibe yi jëli cheikh bi ca kër ga ànd ak moom ci bâche bi guddi gi ba bët ñuy ànd ak kuréelu xasida yi ak jàngkat yi buñ ca noppee Cheikh Mansour Diouf jël kaddu sant xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bachir sant Serigne Fallilou Mbacké Souhaïbou sant mboolem xalif généraux yi mboolem kilifa diine yi mboolem invité yi mboolem jullit yi sant taalibe yi soññ leen ci liggéey bi ñaanal nguur gu bees gi jàmm ak réussite ñaanal réew mi jàmm yewi mbooloo mi ba déwénat yi incha allah ñu fekkewaat kook jàmm ci barke Serigne Touba ci darajay Serigne Saliou Mbacké Khadim Rasoul cant annuel gu mag gàngoog 17e édition bi ca Yoff ajjuma fanweeri fan ak benn